julli gis ngeen ni ngeen gisee julli gi macha allah sëñ Fallou Seye boo xam ne jiite ko dem ngeen kàddu yu am solo yi nga xamante ni tam muy kàddu yu ndénkaan yu jàmm yi nga xam ne sëriñ bi yëkkati na ko jëlee ko ci bokki jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi mu def sëriñ Touba suñu royukaay ci woote jàmm ndax taxawal na yoon wi te xat demut ni mu ko waxee waaye nag ñu ngi ak sëriñ Afia Bousso al imam mi nga xam ne mooy njiitu daayira Muxaddamatul Xidma Euh, euh, ni ko baaxoo defee ci weeru kori kori kori bisu korite bu nekk danañ ko jox kaddu mu euh, jaajëfal mbooloo mi nga xam ne ñoo doon liggéey waaye itam jaajëfal mboolem ñi nga xamante ni doon nañ jàpp ci liggéey bi ci kor gi yépp ndax moom mooy kilifa daayir Muxaddamatul Xidma moom moo war a yëkkati kaddu cant yi kon ñu jox ko rek mu yëkkati ay kaddu yu gàtt. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala arsal anbiyaa mursalin wa ala alihi xadim ajmain mbokki julli yi mbokki taalibe yi ñu julli yëpp ak fu ñu nekk ci àdduna bi di siyaare ñëpp ndokkal ñëpp tam ci weeru tedd wi nga xam ne moom la suñu borom te feex na ñu maam ko ba mu jeex ci jàmm yàlla su nangul suñu taxawaay ak suñu jàmm yàlla ndokkeel gi nag ak ziyaar gi ak ñaange ñu jiital suñu kilifa bopp mu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ak njaboot seen xadim képp di rafetlu bu baax taxawaay yi ñaan su borom musal ñëpp di wax ne ñun de ñu ngi sant yàlla bu baax su ma toog waxtaan seen Sëriñ Tuubaa bu su borom baaxee nu bokk ci njabootam baaxee tam ñuy bokk ci ñu jéem a natt la ay ngërëmam te faatu ñu ko defee ci barab bu am yaakaar mu barab bi ñu nekk muy jumaa ji ak li ko ba tax na ku ne xam na ne Cheikh Ramadan jeex na daati mu xam mu xam xidma amuñ ci ay taxawaay yu mag ci liggéey sëñ bi ci jumaa ji ànd ko ak mboolem ñi nga xam ni mbokkitaay bi nga xam ne ci mboolem adduna bi ànd ko ak kilifa diine yëpp itam taw sëñ mag bi ba ci ba ci bi yëpp ci biir réew mi ak bitim réew mi ak fu mën a nekk taxawaay yoo xam ni fa daal alhamdu wa shukru mën nañu wax ni euh, li sëñ Muntaxa wax rek te foofu bi rek la waaye boo ko seetee sax du kattan wala mu mën doomu adama ndax euh, jëfin yi ak niñ koy niñ koy ko daanaka dafa xaw a ëpp xel ndax mbooloo mën naa bari te tax mel noonu waaye fa daal alhamdu borom yi fa tabaarakallahu bari na tënkoon ci ay ndigal ñu ko jiital soo jox leen xel yoo xam ne dañ ko teg ci mu tege na mu war a tege muy yéeme loo xam ne seet na xolu ñëpp rawatina ñi nga xam ne ñu ànd ak yéen liggéey wax na daal ñu ngi cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee wante amul fi mu yem tàmbalee ci ñi nga xam ne yëngu ci biir jumaa ji ak ñi nga xam ne ci biti ci seen alal di ci dem ñaan suñu borom ku nekk nu fay la lu ëpp na na na na na kàttanam tool ci bakk bi sëñ bi yàlla taxawaay rafet na lool ndax koo xam ni euh, jamono koog yëpp daanaka mën nga wax ni suba fayoo ngi xëy si kër wala xaaj guddi dana xaw jot lépp nga doon jaayante ko ngir sëñ bi looloo taxawaay bu rafet la koo xam suñu borom xam na ko koo xam tuuti suñu borom xam na ko koo gis suñu borom gis na ko suñu borom gis na ko su te sëñ bi tax ñu ko def dana fay. la ko li xaal daal li ñu wax mooy cant gi moom am na fu mu toll am fu mu yem nga rafetlu nag ak képp koo xam bokk nga ci ak noo ci mën a bokk muy ñi jonjowoon liggéey bi ak ñi nga xam ñoo doon yónnee addi yi ak fu mu nekk ñaan su ñëpp suraan ñëpp ñëpp dafa ñëpp xéewal bu jëf ñëpp sax bakkaar dafa ñëpp xam ko am ci biir yàlla su borom defal nag xam daal seet na ba mu mun na wax waaye mu xam daal ñaanal di leen bàyyi sëriñ bi doxal ngeen xam ne lépp te dana fay lépp incha allah taala jërë ngeen jëf jërë bi waaye dafa am kaddu am solo yoo xam ne dégg nañ ko ci euh, kaddu sëriñ bi muy kaddu yi muy kaddu yi nga xam ne kaddu yu woote jàmm la xam ne joxe misaal ci sëriñ Touba wax ne képp koo xam ne ab jullit nga di di di roy sëriñ bi rawatina ñun ñuy ay taalibeem di njabootam topp ci ginnaawam euh, war nañ fu ñu toll di dox jàmm di wax jàmm ndax taxawal na yoon wi ba mu agsi fii te xat dëmmut loolu kon bu ko waxee ci fii réew mu toll laaj na bu baax a baax ay njàngat laaj na itam bu baax a baax ay taxawaay yoo xamante ni ñun taalibe bi yëpp war nañ cee taxaw. waaw suñ bi de moom wata jàmm ci moom la yam ndax dama ko waxoon ci jamono yëngu wéri digga nañ bañ yi nañ nangu lii suñ tubaab yi dafa nekkee suñu am la àndaloon moom ci jëmam sax dafa mën a saafaral boppam moom képp ana bëri musaara bu xam ci loolu kanam suñu maam it yàlla dogal na bakkanam moo gën seen bakkan yépp waaye suñu mos leen def soxor na gàmm mosuñ koo jéem ndax xam ne bu ndigalam kon am murid moom lay mandargaam mooy bëgg jàmm ndax lu jàmm dafa amul njëriñ te waaye am lu jàmm kat da nga ko jaay jënd jàmm waaw kon am murid yar ak teggin ak sax ci ndigal mooy jigéen yii nag mooy jàmm moo joxe jàmm topp ndigal bàyyi tere mos waaw kon ndigal mur bu defee loolu rek moom woote na jàpp woote na jàpp waaw comme daal ñu ñu dénkoon sëñ bi wax na ña ko jiitu wax lii rek si mos ci jàmm rek ci jàmm nag yara tegin moo koy lal waaw borom yar am tegin wax jàmm du ko defee dama kon ñu dig fa daal mu yëpp di tënk ci suñu suñu suñu tënk boobu nga xam ne si biir bu maam ba rek ci loolu ñu tënk woon ku ci dañ ko doo dégg mukk mu def lu doon doo dégg mu wax te ñàkk jàmm rek wax lu dina wax la war a def da war a ko indi bu njëkk a njëkkal suñu nag yaari duñ ci def daal subaa kon jàmm rek kay am waaw. jërëjëf Bousso seen sëñ ci kaddu yu am solo yi nga xamante ni yëkkati nga ko yooyu itam ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax di ñaan suñu borom yàggal la fi lool te may la wér taxawaay bi rafet na tax nga ñun ñëpp ñu ñeme ci liggéey bi ndax liggéey bi jiitu jiituwoo ci rek toog ne waaye dañ ko jiitu ànd ceeg ñoom kon nag yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla guddal sa fan may la wér ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ñu ngi lay sagoo itam bu baax a baax so Bousso jërëjëf kon mbokk yi GMT TV gis ngeen jotaay boobu mooy jotaay bi nga xam ne moom lañ seqoon ak Serigne Afia bu al imam li nga xam ne mooy njiitu daayira Muxaddamatul Xidma kon xam naa ci kanam tuuti rek ñu jàll ci yeneen interview yi ci des allah